moo Mouhamed Serif saar moo nekk sama carte d'identité moo suy waaye nag Ahmed Serif saar lan mooy woowee fii si dëkk bi baada auzu billahi mina sheytaani rajim noo ngi musuloo ci seytaan yi te di nuyu képp koo xamante ni mi ngi ci att bi di Kayaar ndax ñun ay gendar nanu waaye li ñu doon doon ay gendar ñun ak waa Kayaar dañu joxasoo nekk benn lu waral loolu mooy démb bi action bi amee waa Kayaar wane na ni ñun ak ñoom benn na kon tey li ma mën a wax te di ko wax mooy mbir mi sama kaw njaboot la dal bu dalee sama kaw njaboot nag mu doon loo xamante ni tiis na lool metti na lool waaye nag borom bi nga xam ne mooy dogal ay dogalam du nu xëccoog moom ci dara ndax ku mu doon sosokoo boo demee da ñaan yàlla ñibbisi kom yàlla doxal na li moo dogal te ñun mën nu ci dara dañ koy delluwaat ci moom rek. mooy yàlla. gaal bi ban heure la demoon. gaal gi mu ngi demoon ci vers ay six heures six heures ci ngoon mu ngi teer ci sept heures presque sept heures huit heures. vingt et personnes vingt sept nan kenn ki demuloon géej vingt six noo demoon. six moo si des ci géej gi. non non. sept ter huit heures daal ci diggante boobu nan doon ñibbisi ni la ko garant bi waxee sama ma jooju fii nu taxawoon ci bunt bi di di niirlu pour teer si fale leen xànq boobu fekk muy vàgga bi fale leen fekk rek benn boobu la fi la ko def ñëwaatul foofu la gaal gi yem moo le nag ñun parawaaroo nanu heure bu ñuy ñëw fii dañuy am sile gilet sauvetage suñu kippaas yëpp nu kippaas bi toll dañ leen di wutal ay gilet waaye mool yi ci boppam noo fonkul gilet da leen di jox gilet sax nu naan da leen da leen di xatal ba tey tey boo xoolee suñu biir gaal yi da ngay fekk ay gilet dañuy tambambaalu si biir gaal gi ba si biir kër gi da ngay rot ñëw fekk ay gilet si biir kër gi kon gilet bi lu muy jariñ te tamit wàllu météo ñun dinañ ko dégg waaye information yi ñuy jot mu mu nekk lu leer suñu bopp nit ñi dañu war a mën a jëfandikoo li météo di wax météo du yàlla waaye dafa yore xel moo xamante ni jamono ko laaj te si jamono nan nekk te ku nekk si jamono da ngay ànd ak jamono boo bëggee ànd ak jamono te di dox da ànd ak jamono man nag sama wax du si bare loolu moo dal sama kaw dal sama kaw njaboot mu nekk lu ma metti lool waaye lu ma metti metti bu ma xalaatee sama borom rek mu mu oyof sama kaw diisul sama kaw ci dara ndax tey bu matériel bi tuu demoon man moo may gënal bakkan yi ñëw ndax matériel bi am naa moyen pour liggéey ko waaye mënuma liggéey nit waaye lu ma mën a def daal mooy sant yàlla bu baax. non gilet gilet dafa bokk ci loo xamante ni euh, mooy mooy mooy boo loo moole moole gilet la gën a moole maanaam dafa bokk ci suñu liggéey loo xamante ni dañ ko war a respecté ndax tey gilet nekk na loo xamante ni du nii yow heure boo amee problème rek ci koy sol toujours dafa nekk sa kaw ndax lu tax ñun lu ñu mën mën feey tey am na action yoo xam ne bu nu daloon ci biir géej. te solul sile sauvetage duñ ci génn gilet sauvetage rek moo ciy mën a génn léegi nag kon lu ma mën a digal mbokk jullit yi ak ñii liggéey ci géej gi nan nu dimbali ngir yàlla nuy sol sawe gilet sauvetage yi du la tax nga nekk tàppa du la tax nga nekk kul naan da ragal du nekk du du yooyu yëpp du lul nit ki day jéem a sabablu sawe boppam ndax ndimbal da si fekk loxoy borom nanu góorgóorlu ci sauvetage loolu rek laa am lu may wax li may lancé sama mbokk mool mooy nan respecté géej gi ak argument yi ñu mën a jox si géej gi rek nu koy jéem a jëfandikoo te nu si gilet sauvetage bi nu koy fonk ngir yàlla rek tax nu koy fonk ñun nii nag nekk responsabilité yi te nekk si kër yi amul lu si dul daj sol leen gilet yi sol leen gilet yi nag ñun mool yi dañuy wax dëgg li ci ëpp xëy na dañuy jóge àll ba ñëw waaye nag bu ñu jógee àll ba ñëw bokk yow métier bi il faut nga def loolu loo xamante ni maanaam dana leen mën a muccal muy gilet yii kon loolu rek laa am lu ma wax yi daal nañ ko fonk daal salaamaaleykum wa rahmatulah. nit ñi waaw am na fi waaye am na fu action di toll pour soxali nit ko fa mu nekk du du yomb ñun nooy obligé ñun mool nooy mool nooy mujj obligé tëmbal gaal def effort pour génne ñooñu waaye pour fii taxaw euh, ñoo xamante ni dañ taxaw pour mën a soxali nit ñi am na fi waaye ñun nooy jël risque boobu ñun mool waaye du du ñi fi nekk ñun mool nooy mujj dimbalante suñu bopp xam ni ñi fee kee fee kee nekk ñu noo ko fu mën a génne. ñun nooy def loolu ñun ñun moole